suñu mbokk yi nga xam ne euh, yéen a jàkkaarloo ak nun noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaar di leen baal xaq te di leen balu àq noo ngi leen di ñaanal jàmm tey sàkku ci yéen itam fu ngeen mën ci tollu ngeen di nu ñaanal jàmm yàlla mi xam jàmm te ko jeexal moom la ñuy dollee ñaan jàmm nuy siyaar nag mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñoom di leen. sargal di siyaare itam nag mbooleem sunu kilifay diine yi nga xam ne yëpp ñoo ŋànk diine ji eh, di si jiital ci siyaar bi nag si di Maxtaar Xalifa Xaadim Rasul di ko doolee siyaare di ko doolee ñaanal fan wu gudd waxaan ak wér-gu-yaram moo mel ni bu nu ko siyaaree mm, siyaare nañu mbooleem kilifay diine yëpp walbatiku nag delluwaat di am mbégte ak daje ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moo di jataayu mu kàllaf fii ci site Alasar euh, Touba point com mu mel ni xam ngeen ni jamono yi yëpp itam ñoo ngi ci waxtaan yi nga xamante ne bii mooy lenn ci jikkoy doomu aadama fa tabarakallahu tey dellu siwaat nañu ñu defal waxtaan bi euh, ci sama càmmooñ maa ngi ànd ak euh, sëriñ Bassirou Seck ma baaxoo àndal ci émission bi ñu am nag invité boo xam ne. mën nañoo wax ne xëy na gan la ci site bii nga xam ne mooy al azhar point com mu di euh, site internet bi waaye ngeen xam ne du gan nag ci wàllu micro ndax lu tax mooy mën nañu wax ay ati ati ati at loolu mooy liggéeyam bokk na itam ci ñi ñu ràññi ci jataayu euh, kilifa yi jataayu gàmmo yi jataayu màggal yi ak bépp jataay boo xam ne bu ñuy warmal la di jataay bu ñuy sàkkoo ngërëm dana fay faral di teew muy kan muy sëriñ soxay bu jóob gis nga xel day fattu sëriñ soxay bu jóob xam naa jóob jee tax sama xel jaxaso ndax ku ma yàgg xam la xame bi dem na lu jege fukki at yàlla dogal na Serigne bu jóob moomu nga xam ne animateur la nekk ci benn rajo bu nekk muuti e FM di fa liggéey liggéey bu rafet yore fa ay émission yu am solo di waxtaan ak ay kilifa di toog ak ay kilifa tey jii moo jóge Darou muuti ngir war ñëw ci émission bi nga xam ne mooy site internetu alazhartouba.com euh, kon kooku la ñu dalal tey ci émission bi bala balay boobu nag euh, ki leen di présenté émission bi xam ngeen ko seen xarit Ibrahima Ndiaye. xanaa rek nu ubbi émission bi ci xamal leen na leen noo ngi waxtaane tey lenn ci doomu aadama ji nga xam ne doomu june war na koo bàyyi xel ndax jikko ju am solo la ndax lu nit mën a am te amoo ko dafay mel ni am am ba du feeñ lu nit mën a xamit te amoo ko dafay mel ni kon xam-xam ba du feeñ jooju jikko nag mooy lan mooy jikkoy way gis nga way dañoo jàpp ne ci am soow rek la gën naam baax na ci ndax mooy tax mu tudd soow su ko amul meew lay tudd muy way waaye li muy baax baax ci soow it nag nu ko raw la baaxee ci nit ndax nit su wayul dafay mel ni daraam taxawul ay waxam kenn du ci mën a sukkandiku ay jëfam kenn du ci mën a sukkandiku lu mu amit da koy xëy ñàkk ndax way dee koy xañ te itam kenn mënut jëflanteek moom ci dara ndax loo dugg ak moom ba ca biir ak waye dem day tax loola du sotti mu mel ni mënut xarit moom nit ku waye di mu mel ni mënul dëkkandoo moom nit ku waye di mu mel ni mënul àndandoo moom nit ku di ndax lu tax mooy lépp lum ci mën ci doon soo àndeek moom dem ba ca biir waye da ga nekk ca moom mooy feeñ ca la ngeen doon séq ba tax doo ci am lu la neex te gis nga way googu nag doomu aadama war koo def yaa ngi koy tàmbaleek ci ndaw dangay ngay dégg ñu naan xale bii de ku am fula la ko way ci boppam gis nga way ci sa bopp bu yàggee nga way ci say bokk daal di way nag ci nit ñi waaye soo way di ci sa bopp fonk sa bopp bu yàggee doo fonk keneen te boo fonkul keneen way di daal lay dugg mu mel ni kon duma ma ci wax ji damay jox sëriñ Basiru sekk kàddu gi mun nuyoo sànni ci kàddu ñu daal dem nag ci sunu invité muy sëriñ Soxay bu Jóob animateur rajo Daaru Muxti FM asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokk yi jàkkaarloo ak ñun ah di ñu seetaan ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp te di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm ah, mucc ak mosit yàlla am na ko yàlla ñu ko yàlla boole ci darajey nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barke Ahmadul Xadim barke Sëriñ Basiru jërëjëf Sëriñ njaay Ndiaye ah, duggaan nga ci pàq bu amati solo lool boo xam ne moom it xam naa ne du du kenn mën a jeexal xanaa wax ci rek ba fu ñu war a mën a yem rek ñu yam ko waaye du lu ñu jeexal ndax boo ko dee seet daa mel ni daanaka way boo ko seetee dëgg dëggati day mel ni moom mooy lépp ndeke daal li am solo bari ñàkk ko gëstu rek waaye loo gëstu lekke njariñam kenn xamul fu mu ndax way sëriñ Ibrahima ni nga ko waxee man ba ma koy seet ba mu yàgg dafa mel ni way ku way sax daa mel ni ku wérul yaakaar naa ku wér way boo ko seet daa ni ku wéyul daraam du wéy dafa mel ni ku wéyul lu ko song daan ko te lu mu songit daan mu mel ni way daanaka mooy lépp ni nga ko waxee ne ci soow lañ ko xamee waaye ci nit la gën man di jàpp naa ne euh, way ci nit sax la gën a ci far soow kon daal way la ci gën way deng ku woy deng daal ah, loo songu ah, da dem xam naa ko ni daal def rek dañuy daal di jox kàddu gi euh, suñu xarit bi toog suñu wet di sëriñ Souhaïbou Diop kon sëriñ Souhaïbou Diop euh, dégg ko ci waaye la ñuy waxtaan tey waxtaan ak ñoom kàddu gi. jërëjëf euh, sëriñ Ibrahima Ndiaye jërëjëf sëriñ Bassirou Seck jërëjëf sunu technicien bi ñu jàkkaarloo kon yéen auditeurs yi ak ñi seetaan ñëpp ak auditrices yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku tur ak sa sant. tam di leen siyaar ak di nuyoo tàmbee nuyoo bi nag ci sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar xalifa général kullu murit defe bu ñu ko xasee nuyu siyaar ko yoonu murit yëpp daj na waaye nag nu beral nuyoo sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Xati Mbàkke xalifa Cheikh Ibrahima Fati Mbàkke ndaamal daaw di siyaare njabootu borom Daaru Muxti gépp di siyaare mbooleem xalifa généraux yi ci Sénégal yi yëpp moo xam ban tariixa bu mu ci mën di noonu ñu ngi siyaare ñëpp di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon ñu del si rek ci ni ngeen ko waxe muy tomb bu am solo ni ko sunu xarit wax sëriñ Ibrahima njaay sëriñ Bassirou ñëw moom it defe naa buñ ci doon am ba subaat mënuñ koo jeexal muy tomb bu yaatu ndax woy mën naa wax ne mooy lépp ndax kii jàng métier booyul métier mu du du ko am kii jàng xam-xam bu woyul xam-xam bu du bën ak loo man di def nit ku yàlla sax day woy ca la muy def moo xam julli la moo xam wérd la lu mu man di doon boo ca wayul du am njëriñ ndax boo déggee nit ku naan am na fukki métier ñaar nee koy danga wayut ku way ku way du am fukki métier ak ñaar te mel ni bënut kon way noonu nga xam ne cim soow lañ koy séenoo waaye ci nit la gën mën naa wax ne sax bay mi amut xel sax bu ñu wayul seen dara du baax kon way tomb la bu yaatu boo xam ne mënees na cee fanaan ndax way dafa am solo lool ndax sunu jàmbaar jikat waaye kon am lii mu may lii mu am muy xaadimu rasul way nag buñ koy wax woy ca lu jub kenn mënu caa génn nga nekk soo ca wéetee nekk ca boo ca wéetu nekk ca bu fukk dikkan nga ànd ak ñoom boo demee ba wéet ci yow dong it way ca loolee bu yàggee rek da nga gis li nga xam ne moom la woy di jëriñ ndax am soow sax bu wéyul du tudd am soow ndax dañ ne booy wayal te sa loxo génn ci du way kon yow miy wayal da ngay way li ngay wayal door a way kon way day tomb boo xam ne mooy lépp lu mu mën di doon boo ca woyut kenn du la doo ci siiw ay fekkee tey woy day baat boo xam ne nii ñu ko waxee ne woy ñiy woy sax bu ñu woyul ca la ñuy way ah way wa du yëy kon koo gis muy woy dafa yàgg ca lam ne wér ca muy way di wéy comme ni ko waxee boo woyul loo dugg du wéy day taxaw kon way sëñ Ibrahima Ndiaye defe naa ne mu koo jeexal way day tomb boo xam ne tomb bu yaatoo yaatu la kon way manees na cee wax lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu kon nit ñi ndax gone sax bu fekkee dangay yor ay gone nii rek da daal di xam gone gi nga xam ne ëllëg mu jëm fu muy jëm ndax gone dañ na lu nekk ca waaye nag day fekk mu woy ndax boo yari gone gis ki nga xam ne boo koy def dara da cay woy soo fa nekkut ma nga ca soo ca nekkee soo fa nekkut tam fekk ko ca kon kooku xam nga ne woy na waaye am na ñoo xam ne wayuñ da nga leen di dox dara di leen liggéeyloo soo xamee ne dem na ba ci jàng ñiy jàng ki gën a way cim njàng mooy ki ëpp ay résultat bu dee ci njàngum tubaab bu dee ci njàngum alxuraan bu dee ci njàngum métier ni ma ko waxee rek ki tàmbali kon way day tomb boo xam ne nit ñi nañ xam ne way ku ku ci ku ko amul amoo dara ku wayul mënut a am dara doo am alal doo am xam-xam doo amu yar ndax loolu lépp way moo koy génn kon way day tomb bu yaatoo yaatu boo xam ne defe naa ne li nga wax rek Serigne Bassirou mooy lépp. Mm. way lu mu génn dara dara di satut moom muy way. Mm. Serigne Ibrahima Ndiaye. jërëjëf yi bu Diop. ni nga ko waxee rek lañuy delluwaat li nga ne nit bu wayul du dugg lu sotti su dee jàng ak njàng bu mën a jàng te wayu ca du ca am ndam yaa xam ngay dongob daara di jàng alquranil karim tëkk ci daw ak di bëgg a bàyyi njàng ak di bunduxataal xataal wayoo ca njàng ma yàgg-yàgg danga fa jóge te doo fa amee dara yaa xam ngay jàng métier ngay def métier moo ne ñebb bàyyi ko dugg ca ma ca des ba nga xam ne foo demati dañuy xam ne yow wayoo fii lee nga jóge fa nga yore ay métier lu ne nga dugg ca génn métier mu ne nga jàng wax nga ko sànq ba def lu war a mat fukki métier ak ñaar di ko bàkkoo foo dem ne man menuisier te tailleur laa jaar naa ci boulanger man def naa wuude cordonnier commerce def naa ko lu ne nga wax ne def nga ko te itam taxul nga réussir wala tënkal la ko ci ne lom douze métiers treize boroom borom fukki métier ak ñaar fukki xalaat ak ñett la yor kon xam nga ne way am na solo lu toll ni fukki métier ak ñaar nga am ko te foo toll yor fukki xalaat ak ñett kon kay yoroon benn métier te bañ a yor xalaat yu bari moo gënoon nga gisit nag ne ni ko Cheikh Abdoul waxe waxee noonu la lu ñuy wax ci nit ki bane waaye ak a wayadi gis nga ak a joo gis dafa mel ni ak a wayadi ci yées diw ak bari xam-xam te mën a jaamu yàlla ñu ne moom koy guddeeg bëccëg day naafi la foo ko fekk kurus gaañ ca loxo ba ñu ne li ko yàq daal mooy lenn gis nga dañ koy jëkk yàq ba noppi soo ko wax la ko yàq li ko yàq daal mooy lenn mu mel ni dañ ne lan la ñu ne ak a wayadi dafa wayadi nga gis ne dangay nekk ci doomi dëkk bi ku ñu xam sa ndey xam sa baay nga juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi sa ndey di ku ñu wekk sa baay di ku ñu wekk nga toll ci war a denc soxna dem ci koo xam ne war na laa may soxna buñ leen peese seen ab juddu gënu la te bu ñu seetee sa am am mbaa ñu xool sa néeg ndey mbaa sa néeg baay gisuñu gis lu tax ñu war laa xañ soxna mag ñi dajaloo ca jàkka jee waxtaan ñu ne diw li day bëgg diw ñu ne ah, waa bëgg na ko baax de waaye ki koy bëggit baax na de ñu ne ah, waaw waaw doomi diw ak diwa de ñu ne waaw moom am na teraanga de te mën naa muñ ñu ne ku ñu xam la ci dëkk bi de ñu ne xam naa ne day bu nuroo ndeyam mbaa mu nuru baayam day xam naa ne kuy nangoo sonn lay doon ñu ne moom kay du daw xanaa kay lenn mooy dafa waye di ñu ne accam gis nga dafa waye di gune boo xasee ba dugg accam rek nga ci toog dootuñu xool juddu ba duñu xool alal ja duñu xool njàmbaar ga duñu xoolati mën ngaa muñ ndax lu tax mooy dafa am lu ko yàq mooy lan mooy dafa wayut nit bu wayul soo dee góor mën ngaa takk ay soxna di bari fa soxna yooyu fase ndax lu tax mooy danga wayut soo dee jigéenitam yàlla def ci ak waye di ci yow mën ngaa bari ay buumi sëy waaye itam danga bari ay sëy yu tas ndax lu tax mooy danga wayut boo dee commerce loo dugg mën nga caa génn te doo ci am ndam ndax lu tax da ngaa wayul ku lay jox marchandise day mujj bàyyi gis nga euh, sëriñ Sohaybu waye di daal ni ñu ko waxee noonu la dañu ne am soobu ci loxo jógul du way waaye gis nga nit itam li feeg ful la nekku ca tu mën a way ndax way bu doon ne ab gétt la ñu ngi ko yeew ci géttu fulla nit su amul fulla mënta waay ci lenn te maa ngi fàttaliku jamono yu yàgg yàgg yàgg yàgg euh, bi nga xamee ne xëy na mën na wat ay ñeent fukki at jàpp juróom fukki at mas na am ci ñi xëccoo réew mi mel ni sengoor la ak Lamine ca jamono jooja woon benn taalifkat bu ñuy wax Alaaji Mortala Diop ñu bari xamoon nañ ko ci raju Sénégal mas naa ñëw ngaabu di def lu mel ni di campagnal kenn ci ñaar ñooñu moo mel ni Senghor la doon seen carte ya nag daf caa am carte yoo xam ne dañ caa bind way weeñu bind ca non ba mu ñëwee ca pénc ma nit ñi teew la mu jëkk a jàng mooy dafa daf ne way wii may way li ma bëggoon mooy yéen ñëpp ngeen teewlu way wi te way ci daldi ne soo boobaa wate leen way ba way ci deng ni am soow ku newul way nag su way wii di nga am coow gis nga nit bu wayul loo ànd ak moom coow a cay mujj su ngeen takkee takkalee soxna coow a cay mujj soo ko dénkee alal coow a cay mujj ndax nit ku wayul mën naa bañ sax jubadi waaye way di moo raw jubadi waye di moo raw jubadi ba tax na eh, way daal nekk na loo xam ne eh, xam naa ne ëpp na benn émission waaye li ma bëggoon mooy mm, ñu dem rësi Euh, ànd ak sunu sponsor officiel bi mooy euh, Kool Touba dellu si waat nag ci waxtaan bi. allo Souleymane papa. sa soxna si maam Diarra. maam Diarra dafa doom. allo. kër ba jeex na. Mouhamadou Lamine. sama papa dafa ma des desuloo foofu carte. xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal ma la. Kool Touba. site internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex sa baay boobu la doon woo léegi mu dagg mën nga ko jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit ak ku la neex te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da nga mën a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp en toute sécurité damaa lay wax rek. Uh-huh. ne ko euh, maam Diarra am na am na gone. kër gi mu na ko am naa doom rek yàlla baax na. wax naa ko ko. Ah. waaw waaye kër gi baa jeex mu dagg. waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom. <laughs> Ah, bu bari sax. jógee ci service bu ñuy wax ko yeggale ko wax na ko ko ci woo léegi. ci waaw waaw ah maam. waaw. di diggal naa xoolal ma sama portable ba daa sonné. ah day la xaw ma. xaw ma message mu doon. ah yow it demee message bi lañ la envoyé. muy la gis bu ñuy wax am nga crédit. am naa ne. Ah, ah, ah, kon defe naa ne sëriñ Basirou dégg nga sëriñ Souhaïbou fi mu daanalee ci wàllu way. jërëjëf sëriñ Ibrahima daanaka lu dul lees mënta jeexal moom ah mëneesu koo jeexal waaye nag kenn ku ne xam ne li ngeen ci wax yéen ñaar ah ku ci sukkandiku ku ne te jaar si mën cee jëli ndimbal ah, mu mel ni seen wax rek laay dellu di dëgëralaat muy li ma waxoon léegi ne ku wëyu daraam di wéy te Ibrahima ku wëyu buy takku say sax takk ba du dëgër bu ko yenu day dem ba mu yàgg rek mu tasaaroo ci kawam ndax waye day tax du dajale la muy takk nam war ko war a dajale du xëcc bu mu gën ko war a def ku wéy ab daajam sax du dëgër ku wéy lu mu samp sempi ko yomb la ni nga ko waxee léegi ba dugg ci wàllu ngoro sëñ Ibrahima ku wéy bu sampee kër gi ah kër ga du yàgg lee mu tas ndax kër waaye ko mën a tëye waaye ku wëyul mënta samp mu mu kon dafa mel ni boo koy seet way daal mooy lépp ku way daal ñàkkatoo lenn waaye ku waye di loo tëye xam ne dina la rëcc loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ci mën a dolliwaat see ak ginnaaw loolu xam naa ni ñuy def rek mm, ndaxte dafa mel ni waxtaan bi jafe kon damay daal di tàggatoo ak mbooleem Euh, euh, jëmm yu tedd yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan ci site bi ñu ngi leen di tàggu te di ko dellu di leen ñaanalal ci jàmm tey sàkk ci ñoom fu mu toll ñu di ñu ñaanal jàmm mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci daraja sëriñ Basiru kon sëriñ sooy bu jóg kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf sëriñ Basiru jërëjëf sëriñ Ibrahima njaay defe naa noonu ngeen ko waxee way buñ ci doon fanaan it mënuñ koo jeexal. te ni ko sëriñ Ibrahima Ndiaye waxee léegi nga ne ku wëyul du wéy lu mu tàmbali du wéy sëriñ Ibrahima Ndiaye ne ab sëy sax boo ko takkee boo wëyul du wéy kon dafa mel ni woy mooy tax a wéy kon woye di mooy tax a toog ndax loolu nga ko waxee léegi dem na sax ba ci ñi nga xam ne dangay ànd ak kii bu ëllëgee nga ànd ak kee bu ëllëgee ànd ak kee yàgg yàgg yàgg foo nekk ña nga séenu nga jóge ndax Baye Mbaye Jaxate mu ngi koy wax ki nga xam ne fu tooy mu ne fa mooy ñàkk way kooku ku ko am amoo ku mu won gannaaw ñàkkoo mooy ku waye di nag ku waye di bu la wanee gannaaw ñàkkoo ko cim jëm ci moom amu ko ndax woyul te loolu nga wax jigéen bu woyul du mën a sëy góor bu woyul du mën a yor soxna ab sëriñ sax na ma yàlla baal bu woyul ca turu yàlla woon wéy du wéy donc murit bii muritu bu wéyul boo déggee ñu naa cëppeelu naa ñàkk way rek la waaye ku won sa ndey sawaay gannaaw dem ci sëriñ toog di ay ati at boo woyul day mujj te ñàkk way mooy lu mel ni séeneen rek mm. commerçant bi woyut moom itam noonu ndax loo dugg gis keneen na ca leneen nga ne lee moo gën lee gën danga gis koo xam ne fukki njaag place fukki dana fukki place ak juróom dana ko fu ne fu ne mu ne fa ci dëkk bi te ñàkk woy rek ndax boo woyee te li nga yor baax foo nekk woy fa nit ñi ñaa ñëw ci yow nga woy sa li ngay jaay di wéy di ñàkk woy feebar bi gën a bon ci nit mooy ñàkk woy li gën ci nit mooy woy kon mel na ni émission bi li ngeen wax li ci des te taxut ko bari ci minute bu ko fee ñu ngi sant ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak di seetaan ak ñi doon déglu ñëpp di sant suñu technicien bi di sant ñëpp di ñaanal kilifa yi diine yi ci biir Sénégal ak fépp foo xam ne diine nga fa rek yàlla yokk ko ci barke Serigne Touba barke Cheikh Ibrahima Faty Mbacké jërë ngeen jëf. <laughs> jërëjëf euh, Serigne Bassirou Seck jërëjëf itam. sëriñ Souhaïbou Diop ci foofu nga xam ne fi nga daaneele ci wàllu way donte minitaas yi xocc na li ñu koy tënk rekk mooy ñu xamle ne ñi nga xam ne dañoo jóge ci réew mi dem bitim réew ngir daani seen doole ak wuti teraanga ñoo la gën a bëgg a bàyyi seen gannaaw ku way ndax lu tax mooy confiance lañ mën a nekkee fa ñu nekk seen xel dal te boo bàyyee sa kër ku wayut moo xam surga la moo xam soxna la moo xam sa jarbaat la moo xam sa dëkkandoo la waaye daal bàyyi nga ko ginnaaw nekk bitim réew waaye leer na la ne ku wayadi la wayadi googee mu waye di tax na nam la war na jege nga jege ko ne ci wàllu xol du mën a am ndax loo ko dénk mu laatu loo ko wax mu siiw su dee jigéen la it waaye di gam waaye di te léegi sori nga ko sori na la mën naa tax nga cay am lu la neexut ba bis buy feeñ dalay bett lëg ko ko yóbbee mooy daa waaye di su dee mbokk la kasaalik su dee sa mbokkum bopp la itam na yàlla nattoo ko moo xam na muy baay moo xam muy yaay walla muy mag wala muy nijaay walla muy dëkkandoo ju la batale baayam batale la nga gis ne waaye dina am na loo xam ne lii soo ko séqee ak moom doo ci am la neex soo ko ko teggalee bañ koo séq ak moom àdduna jam la mu mel ni tey am am boo doon def liggéey lu kër walla ngay am looy jëndlu lu teggi ko xaalis ba jox ko keneen ngir ne lan ngir ne sama mbokk dëgg la waaye daa waye di su ëllëgee dañ ne jam na gis ngeen jamono diw mi bi mu nekkee diw tey jii mu dem am ñaari moom joxu ko ko dénk ko ko di jënd lu teggi ko fa di ko jox keneen te li ko yóbbee loola mooy waaye di nga gis ne tax na itam benn dëkk neexatul ndax lu tax mooy way wayadi yi ñooy découragé loo ñi way ñi dangay ngay ngir dangay ngay dem Italie ku waye di jóge fi dem Italie dañ ko lijjantil paas mu ñëw su dikkee di wër di wax ne réew ma yàqu na lu tax moom daa wayut ba mu dikkee wayut ci lenn ma nga ca lee tey ma nga ca euh, quartier bële ëllëg ma nga ca ëllëg ma nga ca lee kooka munta xam lu baax munta xam lu neex munta am fenn lenn ndax daa wayut fenn wolof njaay nee na bala ne nux nux jëkk ne war war teg ci itam ne bala ngay a noos da ngay jëkk am banque noos noos bànq banque noos dañoo jege ñe banque noos cim néeg lay nekk waaye dafay yàgg def ay lind yàgg fa yàggaay goo xam ne ay fukki at jàpp ñaar fukki at jàpp fanweeri at banque noos soog a mën a am léegi nag la nga nekk yow bu fekkee appoo ko foofa te bëgg a tëb tëb noos te bëgg a bànq noos fekk la fa loola mooy waye di loola mooy l'homme douze métiers treize métiers mu mel ni kon euh, xam naa ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a jàkkaarloo ak ñun di gërëm itam équipe bi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci kàddu ci micro bi maa ngi àndoon ak sëriñ Basirou Seck waaye noo ngi amoon nag tey suñu invité di gan gu bàyyi ko daal Mouhty moo di Serigne bu Diop di animateur nekk rajo Darou Mouhty FM tey mu ñëwoon fii eh, ci eh, site al azhar touba point com eh, ngir waxtaane ak nun ci tomb bi nga xam ne moom la ñu génn tey te moo di tomb way ci doomu aadama ak waye di ci doomu aadama nu mu demee kon ñu gërëm ko baax sant ko di gërëm na équipe technique bi ñu àndal ci caméra noo ngi ànd ak Serigne Thierno Faye waaye ci sunu réalisation ñu ànd ak Serigne Sohaybou Maar tey am na ñaari Sohaybou bii Sohaybou Diop la sant <laughs> bii bu nag réalisateur la waaye moom Maar la sant eh, reçu ñu ànd ak eh, Serigne Lamine Touré. mii nga xam ne toujours mooy nekk rësi ñu ngi ko gërëm bu baax a baax a baax di ko sant monteur ba tey Serigne Soxay bu maar dellu siwaat di sunu monteur ñu gërëm ko bu baax sant ko déneen gërëm yi ñu doon seetaanitam di am mbégte bu baax nag incha allah dajewaat ak yéen eh, ci beneen émission eh, ci beneen tomb ci jikkoy doomu aadama asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu